nuyu yéen ñëpp ku si nekk sa tur ak sa sant. Mm-hmm, di leen dalal ak jàmm. Mm-hmm. di leen ne kontaan naa si li ngeen ñëw bi ngeen ñëw fii nii quoi. waaw ah. maa kontaan bu baax baax. d' accord alors laay yaa ngi yaa ngi yaa ngi jéem a euh, oyofal mbir mi mais mbir mi oyoful parce que faaw ñu waxtaan alors fi ma bëgg nag ñu dooree ko mooy ana Ada fan la nekk ak ci lan la nekk. Ada mooy parcelle. parcelle. parcelle la moo tax loolu. Ah, xaw ma. Ada Parcelles la féetoo. Mm. te loolu du yoon. Mm-hmm. yaa ngi am combat. nga def Ibra mm-hmm. du yoon quoi. yow yaa ngi préparé sa combat di dem ak Ibra Naajo ah, mel ni yow joxoo nit ñi cër quoi te loolu du yoon. d'accord barke sëñ Bamba. Mm-hmm. te soo nekkee si làmb. làmb nga yaakaar comprendre nga da nekk ci làmb bu baax a baax nga xam ne yow làmb moo la tax a jóg ku nekk da nga am sa métier. yow yaa ngi sa métier man maa ngi sa métier yow sa métier nga yaakaar waa aada moom làmb la yaakaar kon na concentré wu ci làmbam quoi. Mm-hmm. du mu bàyyi milieu yu muy dem amul sens. day yàq carrière rek. billaahi. lan mooy problème aada Fass ba tax léegi féetoo féetee wootul Fass wala da ngeen ko joxatul cër. aada ñëpp waaye yow aada ñëpp ko jox cër. Mm. mais joxul cër boppam. Mm. joxul cër boppam lu tax nga ne joxul cër boppam. mais moom moom mu aada moom fa la dëkk paas la dëkk. Ah. Hmm. mais est-ce que yéen xam ngeen gëddam est-ce que nga koy protéger. aada ñun mënuñu la wax ci ci lu mu nekk jamono jii nii xamatuñu ci lu mu nekk dañuy wax dëgg rek te yàlla tax. wowatu leen bi wallaay ta man gëj naa déggante ak moom. depuis kañ. bi mu génnee prison déggante ngeen. déggante nañ yooyu noonu yëpp déggante nañ ko. d'accord mais trois semaines ngi nii déggante ñu mën ak moom. Mhm. lan moo nekk seen diggante. dara nekkul suñu diggante ah. xëy na moom moo am lu mu jàppal waa Fass. lu mu jàppal waa Fass taw te ah ñun xamuñu lu mu jàppal waa Fass bu mu dem ba féetewoo parcelle. Hmm. ñun jàppaluñu ko dara. aada suñu mbër la. aada da nga bëgg. comprendre nga aada bëgg nañ ko trop. Ah. mais aada carrière dafa bëgg yàq carrière am quoi te loolu du yoon. waaw est-ce que da ngeen di minimiser Ada Fass tamit quand parce que Ada dafa star la jamono ji mbër la boo xamante ni nit ñi ñu ngi koy bàyyi xel quand même est-ce que du da koy minimiser bëgg mu def comme doon li mu doon def bi mu nekkee xale te Ada mag la léegi. comme lan ngeen bëgg mu ñëw di toog ak yéen tout le temps di nekk ci booy yi. yow yow dafa mel ni yow yéen woo Ada jàmm ko ah bon yow bëggoo yow bëggoo carrière Ada. lu tax loolu. ah Ada Fass bi demee ah, ah, la léegi. Ada lan la Ada parcelle. parce que parce que léegi parcelle la féetewoo. waaw li nga wax dëgg la. parcelle la féetewoo te ñun loolu da nga koy naqarlu. Hmm. barki Seydina Mohamed. loolu da nga koy naqarlu quoi parce que loolu noonu daf ñu metti trop. yow yaa ngi am combat ki ngay bëreel parcelle la dëkk yow moom lan lay def parcelle. Hmm. lan lay def parcelle. loolu mooy question bi yow laa koy laaj loolu mooy waaw moom amul droit dem parcelle. ah amul droit dem non amul droit dem yow ku yow ku ngay bëreel parcelle la nekk. jabaram yow ku ngay bëreel parcelle la nekk. jabaram fu mu ne. ki ngay bëreel parcelle nga nekk da nga ah. may déglu ma wax ah. ki ngay bëreel parcelle la nekk comprendre nga yow waroo teg sa tànk parcelle faas nga war a nekk aara bu muy metti faas la nekk kon bu mu neex rek ah hmm. bëgg xaddi quoi di dem ay parcelle hmm. te yow sa mbër ki nga war a bëreel parcelle la nekk loolu du yoon est-ce que du loolu daf leen xeeb léegi te xeeb ñun kan moo ñuy xeeb hmm. ñun ay doomu faas lañu ñun faas lañu dëkk faas la ñuy tiitaroo lépp lu ñu mënti am faat moo ñu ko gënal. Mm. est xalaatul ci xelam que ni dafa dépassé léegi di nekk Fass di toog ak booy est ce jàppoo ni loolu la xalaat. dépassé aada aada warul dépassé waa Fass parce que lu mu mënti mel waa Fass la aada nu mu mënti mel waa Fass la. Mm. kon warul dépassé waa Fass te dépassé wul waa Fass. d' accord comprendre nga. Mm-hmm. dépassé wul waa quoi mais dem bu muy dem parcelle ñun loolu daf ñu metti daa am jabar na indi jabaram gàllem. Mm. ba moo tax yow tey jii su ma la taxoon yow dinaa pour yow pour yow dinaa dem dama lay indi ba sama kër. Eh, mais ça dépend ci man ah. ça dépend yow. kon diggante bi yàqu rek. ku nekk hmm. jël yoonu boppam ah. mais du tax aada deful loolu moom tamit. waaw xëy na loolu moom loolu bëgg-bëggam la rek. mais ñun loolu rafet ànduñu si. mais lan mooy problème bi parce que Ada am na jabar euh, jabaram mi ngi parcelle mën na fa di dem di fréquenter aussi ki nga xam ne moom mooy. mais lu mu fay fréquenter dafa bëri. li muy fréquenter ci jabaram. li muy fréquenter parcelle dafa bëri. waaw ah. aada. aada hmm. pour mu ñëw Fass problème la d'accord barki sëriñ Bamba pour mu ñëw face sa problème la te loolu du yoon ñun da nga bëggal carrière am ko bëggal. Mhm. soo xoolee Baye keroog lu mu wax esat nga xam ne kii dafa bëgg aada Fass Baye Fall moo ko tete aada fu nga ko mënut a dégg jamono jii nii Baye Fall ci la bokk. aada na jéem a xool boppam bu baax fu muy teg tànkam ah xoolu mbëru ndakaaru yi nii mbëru ndakaaru yi nekk ci town bi. xoolal mbaru Ndakaar yi doo leen dégg si benn million doo leen dégg si dara ñoo ngi si seen entraînement jàpp seen ñàmbur. Ada pourquoi pour pour lan mënul def loolu pour lan mënul def loolu mbër da ngay xam ne mbër la mbër da ngay ànd ak ay mbër jour nga ànd ak ay jour. Mm-hmm. Ada ñan lay àndal. Ada ay jour lay àndal. Mm. àndul ak mbër. Ada àndul ak mbër Ada mosoo da nga da nga dégg ñu ne Ada mbër la àndal Ada àndul ak mbër Ada ay jour lay àndal. mais joueur ci sport la nekk. ba tey waaye ay ci sport la nekk. Mhm. joueur yi dañuy dañuy bëri. déedéet. kon wax ma leneen. Mhm. ana entourage yu Ada Fass. dañ cee sonn rek. barki Seydina Mohamed te maa ngi dégg nag gars yi di naan ay. aada gars yi ko wax dëgg aada nit ñi ñoo ngi koy wax dëgg. Mhm. billaay wallaay mais dafa dëgg bopp gars yi ñoo ngi fi ñoo ngi koy wax dëgg aada. gaa yi da ngay wax dëgg mais yéen da ngeen ragal Ada Fass. tamit ñeme woo leen ko tamit non man lan laay ragal ci nit. mais ñeme mais ñeme woo leen ma kay buy eh, ma bàyyi bàyyi di wax loolu waaye. yow doomu doomu aadama lan lan laay ragal ci doomu ah, aadama. ok mais Ada bu demee tey dama lay laaj dama dama ma. Mhm. doomu aadama nga may doomu aadama lan laa lay ragal. fit bi xam nga fit yi yam lan fit yi bokkuñ lan mooy fit. xam nga luy fit yàlla moo am fit yàlla moo am lépp. Mhm. fii lu waaye am yàlla la. Ah kon bu ñu ay waxul ragal. kon ragal amuñu jotul ragal kenn mhm. pour lan ñu koy ragal tamit d'accord alors aada tey bu demee ba ñëwatul fi nga xamante ne moom moo di Fass waxu ragal waay lan ñu koy ragal mais ñeme woo leen ko tey bu aada Fass demee ba bàyyi Fass di dem parcelle di toog am xëy na xëy na moom loolu bëgg bëggam loolu eh, loolu moo tax eh. soxla leen seen daal dem ci aada fas wax ak moom loolu bëgg bëggam la moom moo bëgg bëgg moom moo bëgg loolu waaw ah. ne nga si bàyyi seetaan ko te dafa am ko dafa am dafa am combat waaw ah. na ñëw na ñëw ñibbi si fas préparer combat am man loolu laa am lu ma koy wax Mhm. na ñëw ñibbi si Fass préparé combat sa combat bi ni moo ko mën a yóbbu sori. Mhm. te na entraîné aada entraîné wul. digganteem ak Zos. entraîné wul. Zos moo ko daa dem milieu. bu Zos bu dem milieu aada duggagul ci làmb. comprendre nga kon am na yoo xamante ne nii dem ba Zos bàyyi ko sax yow nga mën a xool comme te yow ak Zos yéenay bëri sax nga jéem a xool si ay tànkam bañ a dem milieu. mais aada dafa bëgg milieu. Mhm. billaay wallaay tallaay dafa bëgg milieu te loolu du yoon carrière am la bëgg yàqu quoi. Mm. barki yàlla ay millions nii nii nii nii si mbër da ngay yàq sa carrière fët fët. d'accord carrière mbër yàggul. Mhm. barke sëñ Bamba. mais milieu boobu muy dem tey euh, lan moo leen ci dérangé parce que gis nañu yenn yenn mbër yu nga xamante ni euh, dañuy faral di dem ci boîte de nuit. kala dem dem fekk ñi nga xamante ni ñu mu tudd benn tur mais gis nañ ba taay ay mbër yu dem ci boîte de nuit. ñooñu suñu demee mooy daan nañu. Mhm. bëri nañ ba daan. dem nañu tootoo leen gisaat. mais aada ci defet la jógee. di dem ay milieu di dem ay milieu. milieu bu muy dem moo neexul gaay neexul leen. barke mhm. sëriñ Bamba. d'accord aada na

en tout daal na concentré wu si làmbam ay millions moo ngi ci kanamam. Mhm. dimbali waajuram tabaxal ko kër. ah yóbbu ko màkk man man loolu laay révéré man du ma mbënd dara rek mais man looloo nekk sama xel rek. d'accord barki Serigne Bamba. alors dañuy ñëw ci soirée Ibra Nadio bi nga xamante ne Ada dem na fa ndax lan deme soirée bi gis nañu coow li ni mu ni mu baree ñu bëri di wax ni Ada dafa demoon ci Ibra Nadio am ñoo xam ne sax dañu waxoon que ni aada dafa dafa dafa màndi ak yi ni mel alors lan ngay tontu tey Ada Fass ci soirée bi nga xam ne demoon na fa euh, ci Ibra Naajo ndax loolu moo ñu neexul soirée bi mu dem soirée bu soirée yu muy dem neexuñu mais bi bu Ibra Naajo bi daf ci raw parce que comme am léegi mu jege waa moom laa lay wax neexuñu moo ah. Seydina Mohamed neexuñu na bàyyi milliers yi quoi na bàyyi ay soirée ak buzz bi mu jël ci soirée bi ñëpp naan Ada Fass non non ñoom loolu moo leen arrangé ñooñu noonu di tëgg ñoom loolu da leen arrangé booy di ñëw. ñoom seen liggéey la ne. waaw seen liggéey la ñu mais loolu da leen di arrangé. Mm-hmm. comprendre nga tey jii bu fekkoon benn Balla Gaye moo fa dem loolu dañ loolu dañ ciy kontaan parce nga xam ne kii nii am na lu mu mel ci dëkk bi. Mm-hmm. te fu mu dem gars yi après suba média yi rumeur loolu da leen di neex quoi. Mm-hmm. kon moom gars yi ñoo ngi koy sàkkatoo te xamul loolu. Mm. milieu bi na ko bàyyi na bàyyi milieu bi muy dem aada. d'accord. barki yàlla na xam bàyyi ko continuer ci carrière am comprendre nga mm-hmm. ah, respecté entraînement na dem entraîné ji mm. keroog bu mu demee soirée ba xolo aada lu mu sol sort bu mu sol aada mm-hmm. entraîné wul dañuy waxtaan rek dañuy wax dëgg rek da nga xool yeel yi dara nekku ci dara nekku fa nañu wax ne dëgg mm. ah yeel yi ndaw dara nekku fa dara nekku fa na entraîné mm-hmm. loolu la am lu ma koy wax. d' accord alors lan li ñu wax ci lendemain euh, soirée bi wax ni Ada Fass dafa dafa màndi woon alors est ce que loolu dëgg la. yow loolu da nga ko gis moo tax ma ñëw di la ko laaj quand même man loolu teguma ci sama bët fekkeewu ko gisuma ko. Mm-hmm. amul. gisuma ko man lu ma gis laay wax. est Ada day jëfandikoo yooyu. man loolu mësuma ci teg sama bët. barki borom daaru si góor yi mosuma ci teg sama bët. la moo tax tout le temps ñuy ñuy ñuy acharné wu ci moom di wax que ni dafay dafay màndeeg euh, dafay dorogé wu kàddu yooyu noonu lan moo tax ñu koy wax quand di suus voilà. ah xëy na ñoom loolu wax ju leen neex la rek bëgg yàq deru booy bi mais man loolu man sama yoon nekku ci quoi parce que waaw parce que tamit aada kese moo fi nekk mbër. du aada kese moo fi nekk mbër. mbër yi bari nañu mbër yi bari nañu mais li tax mais li tax ñu taamu ko ci loolu noonu ni naan ay aada day def na ko sudul noonu. Mhm. te loolu du yoon. lu tax ñu ko ciy tudd. waaw mais xaw ma est du dafay ànd ak ñu koy def wala dafa xamanteeg ak ñoo xamante ni dañuy yëngu ci wàllu yooyu. ah ko yóbbee li tëgg neex yàlla nag. bu doon ànd ak mbër yi daal di ànd ak mbër. Mhm. ànd ak ay moroomu mbërëm. fii Ndakaaru bëri na ay mbër am na ay mbër yu fi nekk. Mhm. na ànd ak ñoom di dem di loolu la am lu ma koy wax. mais question bi ñenn ñi di laaj mooy est-ce que Ada ba tey mbër la loolu mooy question bi nga xam ne sénégalais dañ koy posé. Ada Fass ba est-ce ba tey mbër la mbër dina jël avance promoteur dina ko tëggal làmb ngay laaj ndax est-ce que ba tey mbër la. Mhm. am na yoo xamante ne bul ma ko laaj. ah faaw ñu laaj la ko. parce que Ada Fass gis nañ ko yow journaliste nga yow. loolu ngay laaj. waaw mais mais yow tam loolu ngay laaj yow gis nga man ci sama métier ma di ko def. mais Ada moo ngi ci métier Ada moom la mujjee dem euh, ñenn ñi sax wax nañu ni tey respect dafa des parce que dafa jàkkaarloo ak force de di ko ñaawal di fecc ni xale bu am deux ans te nga ko moo tax doon nangu waaw léegi yow loolu nag yow sa téléphone nekkul sama téléphone waaw léegi ma loolu yëg nga loolu quand non man loolu gisuma ko. Ah bul ma bul jéemoon ay xaw ma force de lor kenn xamul. Ada Fass jàkkaarloog moom di ko ñaawal. mais loolu gis nañu ah, ci TikTok bi waaw. non man loolu seetaanu ma ko après naa dugg seetaan ko. yow nangu woo seetaan dara. non yow li ngay ànd ak fa non man loolu seetaanu ma ko loolu seet xam nga man boo may laaj. waaw danga may laaj wax yoo xamante mais yow yaay ànd ak fa mais mais mais mais mënoo comprendre mënoo mënuma comprendre benn affaire nga may ah. wax di naan taxaw ak policier bi di fekk di def non non bàyyi yooyu bul bul jéem a. mais loolu la def quand même non bul jéem ak ak ak ak ak policiers yi. bul jéem a def loolu bul jéem a yàqal booy bi mais gis nga vidéo non nañu waxtaan rek. am na loo non ah déglu ma waaw déglu ma waaw da nga may déglu man doomu Ndakaaru laa man doomu Fass laa. mais amoo fit wax ak waaw déglu ma aw ma fit wax moom baax na. d'accord loolu leer mais xam na laal bu xamal aada carrière naka respecté mais ay dafa taxaw policier bi di fecc di def na ko tuul man loolu gisuma ko yaa ngi def mouvement loolu gisuma kon seetaan nga ko man loolu gisuma ko loolu yow yaa ko gis mais man gisuma ko même même loolu noonu sax su amee sax waruñu toog ci média sax di jéem a sulli daanaka détail yooyu noonu. mu def ko ci média ko defee caméraman yaa ngi ko tiim. caméra yi ñu ko filmé waaw man loolu gisuma ko boobu gisuloo ko mais ci dégg ndax loolu rafet na ndax Ada war na def loolu. mais policier bi la la ko wax fekkee nga ko. dafa bëgg dafa ñëw bëgg a dugg policier bi ne ko fii du yoon mais aada mbër na mais mais am na xam ne fa la war a aw ak fu warta ah, aw dafa loolu dëgg la li nga wax dëgg la am na foo a aw am na foo xam fa aw d'accord waaw yoon la mais loolu noonu ngay wax noonu man loolu gisuma ko dëgg neex yàlla d'accord waaw lan moo tax yow Ada Fass doo ko nangoo wax dëgg ak mais yow Ada Fass lan mooy Ada wax dëgg man Ada Fass maa ngay wax dëgg nee nga déggatoo ko mais déggatuma ko déggatuma ko dégg na yàlla. Mm. d'accord déggatuma ko. Mm. mais dañuy waxtaan rek. d'accord nit dañuy waxtaan rek. Mm-hmm. comprendre nga. Mm-hmm. du ay médias ñooy tiim tamit di wax na ko si ah. loolu du yoon. alors Ada kañ la gëj a def kañ la gëj a entraîné. Ada Fass ba ko Zarko daanee ba léegi ñaa ngi may dégg bu baax ba ko Zarko daanee ba léegi tegul tànkam écrit ba. tegul tànkam écrit ba. te mu am combat. te mu am combat. xam na man yooyu moo ma ñor quoi. mais du waxu ay policiers. mais lu waral loolu mais loolu faaw ñu wax ko quand parce que Ada Fass dafa bokk ci mbër yoo xam ne sénégalais dañ koy bàyyi xel du respect mu jàkkaarloog force de l'ordre di di di fecc quand même faaw faaw ñu faaw ñu souligner loolu. parce que yow xale taxul bul a ma Ada Fass ak kenn mais mais loolu moo am. yéen xale jigéen yéen da ngeen bëri hmm. loolu. wul nii di la dee. d'accord moom lay waxaat yeneen wax kontul ci li ma la wax tey. Ada Fass ci défaite la jóge waaw ci défaite la jógee. gëj na entraîné gëj na entraîné mais est loolu yoon la quand loolu du yoon. Mhm. loolu loolu da koy ñaawlu loolu du yoon. Mhm. waaw yooyu man ma ciy sawar quoi pour mu daan Zoss. Mhm. kese. entraînement kese mooy tax u daan Zoss. mën na bëre trop mais soo mënee a bëre indi doole. mooy entraîner da ngay dem nga dem entraîner ji comprendre nga. Mhm. nga dem entraîner indi doole bu bëri nga mën a daan jos. mais nii forme bi nii nii nii nii nii nii loolu daanul jos. Ah. demal nga entraîner ji loolu laa am lu ma lay wax. Mhm. voilà. alors face à face am ak Zoss euh, Ada Fass ñu bëri doon laajte lan moo tax gisuñu ko. face à ak Zoss. Mhm. face à face ban. face à face Ada ak Zos lan moo tax. gisuñu ah bi. boobu gars yi promoteur bi moo woote. Mhm. moo woote ne sécurité bi doyul. d'accord loolu kese la. sécurité bi doyul. waaw yow ñëwuloo. moo ko ne wu toog sécurité bi doyul bu mu ñëw. parce que dafa amoon ah. ay yeneen yoo xamante ne dafa waroon am ay yeneen ay yeneen mbër yu waroon ñëw foofu noonu ci da ñëw nañu. Mhm. gisuñu hmm? leen waaw kon jeex na kon am na yoo ne ni tamit. loolu moo tax loolu moo tax gisuñu leen. loolu la. te foofu nga ko teg. foofu laa koy teg bu mu neex. Mm-hmm. alors dara du xew mais tey ñenn ñi dañuy laaj euh, sa diggante ak aada Fass lan moo ci nekk dëgg dëgg dëgg. sama diggante ak Ada Fass. Mm-hmm. Ada doomu Fass la. parce que Ada tout le temps da ngeen daan nekk euh, tout le temps da ngeen daan déggoo mais gis nañu ne léegi loolu amatul lan moo nekk réellement seen diggante. ñaar loolu yem na loolu loolu yem na ñëpp yem na ñëpp. dafa am lu ko détourné. waa xëy na tamit am na lu ko waaw comme li nga wax rek. doo comprendre quoi. d'accord alors ana ana soxna Ada mooy ñaareelam. ñaareel bi moo fi. mu ngi ànd ak moom ba léegi. man loolu wóoruma de. mais ñu bëri dañuy wax que ni dañoo divorcé ñoom ñaar est-ce que loolu am na. man loolu déggoon naa ko dañoo divorcé loolu déggoon naa ko. allo. loolu déggoon naa ko ah. déggoon nga ko. waaw est-ce que loolu am na réellement. non loolu amul. divorcé wu ñu de. ñoom ñaar ñu ngi nekk ba léegi ñoo ngi nekk ba léegi. d'accord alors ñu bëri wax nañu ne nag nit di nga góor. booy ah. takk da ngay takk jigéen ju baax. yaa may dégg. Hmm. dangay takk jigéen ju baax. man góoma jigéen boo xamante ne nii da nga ñeme sëriñ da nga ñeme misik di noot di jàpp góor di ko noot man góoma jigéen boobu noonu jigéen da ngay gëm. Mhm. man góoma jigéen boobu noonu quoi. jigéen mu jigéen moo mën a yàq góor. yàlla nañu yàlla musal ci jigéen bu bon. Hmm. Ah. Eh, wax jooju kañ nga ko bëgg a féetale. góor yi laa lancé rek góor yi may seetaan quoi ñu xam bu da nga da bëgg a wax ni Ada Fass jabaram daf ko jàpp ci sëriñ. jigéen man góor yi góor yi laa koy lancé góor yi may seetaan. Hmm. bu ñuy takk jabar nañuy xool jabar bu baax bu ñuy takk. jabaru milieu. man jabaru milieu su desoon si jabar ma duma takk jabaru milieu xalaatuma ko. Hmm. waaw man kii jigéen biy dund milieu man gaayen man yooyu nekkuma ci de. d'accord man yooyu dawul sama yaram de. bon. Hmm. Hmm. alors ban témoignage nga mën a def tey ci ci ci ñaareelu Ada Fass. na ñëw Fass Ada ñëw Fass. d'accord pour yow loolu mooy solution. waaw loolay solution bi. ci appartement bi ñu nekk. ndax du yoon du yoon jarul nga koy yegali wi jëm kaw. loolu du yoon lu tax nga ne du yoon. du yoon ji nga nit yow su ma la tey jii su ma la taxoon ma kër yaay laa lay indi. wala sama kër famille. mais du ma jël appartement ne maa la fay dugal. xalaatuma ko sama àdduna. nga sa jabar ma fase la su ma la yow tey jii nii ah, ma yóbbu la kër yaay. Mhm. wala ma yóbbu la sama kër ko sama àdduna. Mhm. pour lan ma lay jëlal appartement. d'accord loolu mooy lan. kon ànduloo ci appartement. ànduma nekk ak soxna waaye yow. Eh, booy faas doomu faas kenn àndu si loolu nga bëgg dégg mhm. amul kenn ku si ànd d'accord yéen na ngeen bëgg a jàppee Ada Fass xale boo xamante ni tey yéen a koy tracé fi muy nekk Ada magum cëmm la waaw dafa nekk su carrière am mhm. carrière am la bëgg defar ba si su takkee jabar du ko yóbbu fu ko neex war ko yóbbu fu ko neex d'accord na ko yóbbu kër yaayam wala yóbbu ko kër fu yóbbu ko Fass fii nii kër famem mhm. na yóbbu foofu tey ji sa rakk bu góor wala sa mag bu góor bu doon takk jabar yow di nga nangu yow wi dem nga xëy wi jël appartement non dañuy waxtaan rek mhm. loolu doo ko nanguwaay dañu wax de dëgg mhm. mais li ngay yéene sa mag sa mag bu góor wala sa rakk bu góor yéene ko keneen ak keneen waaw ah, ñun aada loolu lañ koy yéene mu indi jabaram fii mhm. est-ce que toog ngeen ci waxtaan ak moom ci lu mel noonu pour mu indi jabaram Fass mais loolu waxtaan nañ ci waxtaanee nañ ci waxtaan nañ ci waxtaan nañ mais doo comprendre moom moom dafa mel ni ku tëx dafa mel du dégg aada jamono du dégg dafa tëx d'accord. waaw d'accord mais na nga dem entraîner ji. entraînement yi moo la ñor yow. entraînement yi moo ma ñor na dem entraîner ji. Mhm. fii mbër yi nga doon gis fii nii ñuy bëree barkaati témb mbëru du ma tudd seen tur mais bëri nañu quoi. d'accord ñëpp dañoo entraîner wow kongo dëgër këj. aada mel nan aada nag mais déggoo kii nii lu mu wax nu koy waxatee tur bi laay fàtte waay tu mu nekk ci làmb yi rek. Mhm. kii nii waay ah tu mu bëgg aada faat rek. tur bi laay ko Ada ah, Fass promoteur la wala non non du promoteur la wala. ah hmm? non bi laay fàtte wax na. d'accord Fadam fu mu gis Ada du toog dafa bëgg booy bi carrière la ko bëggal. Hmm. te Fadam fa la dëkk. Fadam fa la dëkk. mais hmm. mais est-ce tey mbër bu am carrière la quand mbër bu am carrière la kañ. ak ni mu ko jàppee nii di dem si. mais nu jàppee nii moo dul yoon. Mhm. mais mbëru carrière la. waaw ana ñaata mbër ñaata mbër ñoo bëgg bëri moom. bëri na mhm. mais yow doo xam fi ngay teg say tàng nga bàyyi milieu yi ngay dem. milieu mënul la jural lenn. vraiment mhm. rek la lay indil. d'accord kese balaa ngay naan su ma yëgoon te su ma yëgoon da lay loolu la lay bañal. yi ngay dem amul chance. da nga gis mbër ay niveau génération à reface yi da gis ay mbër yu si dem milieu mhm. suñ demee milieu benn ay daan nañu mooy si lendemain bi dem nañu mhm. dem bëggal seen xol suñ si su jeexee jeex na alors ñu ngi waat ci entraînement mais Ada Fass kañ la commencé dem milieu bi mu takkee ñaareel est-ce que avant mu koy takk daan na ko def Ada Fass bu mu commencé dem milieu mooy bëgg a yàgg bi mu takkee ñaareel wala avant mu koy takk waaw bu mu takk bu avant bu koy takk d'accord ci milieu la ñu xamante ñoom ñaar. waaw jeex na maanaam yooyu amul sens ay milieu. Mm-hmm. barke sëñ Bamba. d'accord combat bi nga xamante ni moo nekk ci kanamam muy diggante ak Zos euh, euh, ku nekk xam na ni sos tey dafay respecter adversaire mi nga xamante ni ñoom lay jàkkaarlool euh, ba tax na bu jubloo ci li dafay fonk lool entraînement tey dégg la sa biir ay kàddu nga ne Ada Fass respecté wul entraînement depuis mu jóge ci defetam digganteem ak Zarko ba léegi dafa toog nanguwul ñëw écrit ba. waaw tey loolu lan la mën a def ci digganteem ak sos loolu moo mën a def ci digganteem ak Zos. su indiwul doole du daan Zoss na dem entraîner ji parce que ji nga nit booy bëreek moom da nga war a def ñàpp dëgër këj indi doole ju bëri. Mm. xoolal a Fass dafa mbër Ada Fass kii nii yeneen mbër yi. Mm-hmm. dafa indi Ada kii waaw. ci jamono jooju ci jamono jooju noonu. Mm-hmm. da ngay xool nga xam ne kii dafa xeeñ doole. mais lan moo ko teree dem entraîner Mm-hmm. dem tin ya entraîné ji. d'accord dem écurie ba commencé entraîné ji di contact. Mm-hmm. mais dañuy wax na dëgg. mais dafa mel ni combat am ak Zoss amoo leen ci yaakaar quand même. ay li tax amuñu ci yaakaar ñu am ci yaakaar ngeen amoo leen ci ah, ah, yaakaar. comme ni ngeen mais maanaam mais mais maanaam. lii ku ci carrière lii bu mu jëm nii. ñun ci mm-hmm. loolu noonu la ñuy wax. si sa kanam dama ci xaw a lu mel ni déception nga am ci Ada Fass. waaw lu muy dund moo ma métti quoi. te ñun. ay doomu faat lañu yéena wuñ ko teralu ñaaw. Mhm. barke sëñ Bamba. suñu soñoon chaque jour Ada Fass day am mhm. chaque jour day am chaque jour suñu soñoon day am ah. xaalis bi di gën a ñëw ñuy dimbali ñu ko jege. ñuy mhm. dimbali mbokkam di dimbali yaayam tabaxal yaayam kër yóbbu yaayam màkk. loolu dafa neex. d' accord ayta ñu ñëw ci ci Zos parce que ku nekk xam na euh, Zos ni nga xamante ni noonu la noonu la noonu la fonkee làmb comme ni ma ko waxee sànq tout le temps mi ngi ci ay entraînement am tey Ada Fass ndax nga gëm nga di tey bu jàkkaarlooy ak Zos dina ko xool parce que seen combat li ci des pareetul quand même te wax nga ko Ada xeeñatul doole jamono ji. Mm-hmm. xeeñatul doole xeeñu ko sos Zos daf ko xeeñ. waaw mais Ada Fass dafa mën moo ko dàq. Ada Fass dafa bëree. bëre kase du làmb. waa déglu ma doole mooy ak doole tamit. te doole bi nekkatu fi. waa defal nànk rek. mun mhm. na bëre trop mais su indee doole combat bi du yàgg mais su doole combat bi day métti si moom. Zos dafa mën a bëre de. su indiwul doole combat bi day métti moom. ci ban côté bi day bëri Zos boobu Zos la koy day fekk su indiwul doole Zos gën ko taxaw day métti si aar face. côté côté contact. waaw d'accord. foofu day métti si moom quoi te loolu du yoon. Mhm. Zos ko gën a fare jamono ji moom. non Zos instant bi moo ngi ci entraînement am. waaw dafa nekk ci état sax. waaw te aada loolu da nga koy nangul nekk na ci état. waaw aada nekkul ci état. aada kontaakatul lewtoowul nengeñul <laughs> aada mi ngi ci milieu te yéen nee moom mooy seen seen yaakaar. yàlla na ko yàlla suturaal rek. foofu nga bëgg a wéer wax ci. waaw yàlla na ko yàlla suturaal quoi. d'accord. dund ñun xamee wuñ ko woon ci lii nii quoi. Hmm. billaahi. aada dañ ko yàq. waaw. ñoo yëpp mën na ne parce que aada aada waxatul dara faat. billaahi. Hmm. te estaf bi dañoo sonn si moom nag de da ngay wax dëgg mais hmm. boobu dafa mel ni dafa mel dañoo jël ay sànq rek dugal ko sa nopp bi du dégg. bu ngeen waxee jaar gauche mu wax jaar droite. gëmoo ne mystique dafa dafa am ci ci mbiru eh, Ada Fass am ci mbiru Ada yow tey jii nii suñu la jàppee ci mystique da ngay toog doo taxaw mystique dafa am liiroo loolu ci moom waaw mais noonu la demee sax dañ ko liggéey barki Seydina Mohamed ay mbokkam nañu taxaw si booy bi jàppale ko mm. ay mbokkam laa wax nañ taxaw si booy bi jàppale ko bu baax a baax a baax a baax loolu laa wax daal d'accord dañ ko liggéey ci ñu ko liggéey ci làmb lañ nekk mais doo xam ci doo xam parce que su toogoon fu mu waroon toog yooyu noonu ñëpp ko mm-hmm. bu muy metti fu mu nekkoon. su fa mm-hmm. nekkaatoon barki Serigne Bamba kenn du ko laal ci dara. àndandoo yu bees tamit yooyu noonu yëpp gis nga nit làmb làmb dafa fiir. Mm-hmm. làmb sa gox. toogal sa gox. àndul ak dara. àndul ak dara. làmb lenn la àndal entraînement teel la tëdd. Mhm. entraînement teel a tëdd. làmb loolu la àndal. dafa ànd ak sacrifice mais lu la nee làmb ànd naa leneen ak lu kooku da lay nax. mais est-ce que sacrifice yi muy laaj yëpp aada nangu na ko quand même loolu aussi question la boo xam ne faw ñu faaw ñu laaj teen ko. aada dafa bëgg làmb. te nangu ko ñafe. aada dafa bëgg làmb aada dafa bëgg bëre aada dafa mun bëre mais doo xam jamono mm. jii nii doo comprendre quoi. wala mu doyal xaalis boog. non doyal xaalis yow aar nan lay doyalee xaalis yaa ngi si làmb di doyal di doyal xaalis. Mm. yow amagoo dara di doyal xaalis. d'accord est-ce que doo leen ko laaj quand même bu fekkee dafa bëgg a bàyyi làmb mu mu teel leen ko wax. non loolu dinañ ko si dinañ ko dinañ dinañ toog laaj ko ko quoi. Mm-hmm. waaw. waaw mu mën a xam quoi. wala mu bàyyi te waxu leen ko. même dafa jël avance. avance ban la jël. Mook Zos. waaw du moom loolu laa la wax. waaw mais jeex na. dama ni la même bu dee jël na avance ndax bàyyiwul te waxu leen ko. non loolu mënul ne. Hmm. yéen journaliste yi nii. waaw <laughs> su bàyyiwoon suba yéen xam ngeen ko. Hmm. yéen ñii da ngeen pare rek waaw. waaw. d'accord ci li ñu ko gën a gis moom mooy milieu. Euh, loolu la gën a euh, fonk jamono ji te loolu lay gën a topp ndax Ada Fass soirée yi lay dem. Ibrahima Diaw mu dem fa xëy génn ñëpp di bind ci moom aada talatul làmb ji milieu la gën a tal waaw loolu loolu li nga wax dëgg la waaw aada milieu ñun loolu moo ñu metti eh, est-ce que duñ teg aada milieu quand même nañu rafetal kàddu gi waaye mais loolu dara ñaaw ko milieu lu ci ñaaw aada milieu ah bon man maa ngi ci milieu bi li ma nekk nii def lu mu doon non non eh dafa bëri façon rek aada ci ban la nekk aada si bon bi la nekk Mm-hmm. bu baaxul bi bi yàq mm-hmm. ci boobu la nekk d'accord lan ngay wax à de face ngi lay seetaan na respecté entraînement jox jigéen ñi comme li nga wax na mm-hmm. nga dimbali sa yaay sa yaay dafa sonn si yow rek barki Seydina Mohamed sa yaay dafa sonn si dimbali sa yaay nga yóbbu sa yaay màkk xanaa bëggoo yóbbu sa yaay màkk xanaa bëggoo ko tabaxal kër man loolu laa bëgg rek tabaxal sama yaay kër yóbbu ko màkk mhm. loolu saa yi ma jullee dama koy ñaan yàlla parce que borom daaru si góor yi mhm. ñun borom daaru la ñu am boroom daaru si dëgg rek la ñuy wax mhm. moo tax ñun ay nitu dëgg lañu quoi ñun du ñu ay turuse duñu turuse alors sa conseil ci xale yi jigéen yi leen laa leen wax nañu gëm seen bopp dem liggéey bu ñu yaakaar si benn góor d'accord yeewu fajar dem liggéey loo am indil ko sa yaay loo am yóbbugul sa njaboot man jigéen bu gëm boppam laa gëm. boobu mhm. jigéen boo xamante ne dafa bëgg lu yomb. Mm. lépp yaakaar ko si góor. non non boobu baaxul. kan ngay gaaruwaale. ku may gaaruwaale jigéen bu bëgg lu yomb laay gaaruwaale. d'accord. da nga bëgg lu yomb. question ma ko poser. yow mhm. jibi borom ngor. Ah. caaca doomu ndey sàkket maa ngay bëgge bu baax a baax. ah maa ngi nuyu tamit Papa Ndiaye jeune tailleur bi. Mhm. Ibu Ndiaye sama ménageur bi kookoy sama ménageur. am ménageur. <laughs> yow yaay ménageur man dama pare rek. da nga pare am dama pare arrêt war a topp aada te te woo ko ay te ñu tàggatoo lan mooy ay war a topp aada te ñeme woo ko yow doo bàyyi li ngay wax ñemewul aada xale <laughs> merci beaucoup jaa ngeen jëf ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko jaajëfal mbokki internet yi ñu doon topp ci Dakar live TV ak Feeling Dakar euh, tey nag ñu dalaloon ki nga xamante ni moom moo di live bu Ada fas dégg ngeen kàddu yi nga xam ne euh, jot na ko yëkkati amal na leen solo jàpp nañ ci li nga xam ne moom la ñu foog